Ah, asalaamaaleykum wa rahmatullah ba tey yëkkati fitna la nekk fii ci diwaanu Maroc ah, sama waa ji ci sa audio bii nga xam ne moom laa bokk ci sama bokkutaanu càmmoñ indaale dégg naa la ngay wax ci kii nga xam ne moom la ñuy wax Macky Macky Sall maki naxaate diggaate tas yaakaar wax waxeet tere yalwaan sàll maki dollar maki tooxi doona maki musibam sénégal séri marem fay sàll yahya sàll alias jimboori maki sarle sàll donald trump fay sàll alias riana timbo fay sàll tele tukki tëj torox tànge timbo fay sàll laso raax pentir sànci ablay wadd yal nañu yàlla tàqale ak moom 2019 incha allah képp ku ne amin yal na la yàlla def milliardaire mbokk yi amin amin waaye mbokk mi kii nga xam ne moom lay ñuy wax Macky Sall yàlla ñu yàlla tàqale ak moom 2019 incha allah ñu bari ci sénégalais yi suur nañ ko te doyal nañ ko yow koo xam ne yow réew mi nga nekk say doomi réew yow daal ko ànd ak yow nekk na ci jàmm ko ànd ak moom na dembaa mu dem ci kaso bi Macky Sall yàlla ñu yàlla tàqale ak moom incha allah président bu gën a gaaf Macky Sall bi ma xamee ko ba léegi musuma ko xam ci menn réew jëlal naa Sénégal nag adduna bi yépp laa wax xam na be xam nga am na beneen président bu ñu fi doon wax euh, his excellence cheikh professeur alhaaji docteur yahya abdou asis awal jumus junkun jàmme na siiru den baabali man saa ñu gën ko xam ci yaaya jàmme yaaya jàmme moo gën junni yoon Macky Sall koketu jabaru yaaya jàmme sax koketu jabaru yaaya jàmme sax moo gën Macky Sall ngeen di wax yaaya jàmme yaaya sàll yaaya jàmme gën fuuf Macky Sall ndax yaaya jàmme lu ko waay mën a waxalit élection yi Gambie moom organisé na ay élection yu leer donte bañ ko gañee nag wax na leneen waaye Yaya Jammeh moo gën Macky Sall moom yemuñu yemuñu yal nañu yàlla tàqale ak Macky Sall 2019 incha allah yal nañ ko ga Macky Sall daal premier tour yal na am 15 pour cent salaamaaleykum